Birama Ndiaye. À la présentation, Pape assure la partie technique. Merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure du bulletin d'information que nous démarrons avec euh, le FDS, les Guelwaars qui réitère son ancrage dans l'opposition sénégalaise et se retire de la coalition Idy 2019. Le FDS appelle à la mise en place d'un large front pour poursuivre le combat Le directoire national du parti, face à la presse hier, a donné mandat au docteur Babacar Diop d'entamer une tournée nationale dès le mois de décembre dans le but de massifier le parti. Nous écoutons à ce propos Hassan Khan, il est le porte-parole du jour au micro de Sud FM. Pour lever toute équivoque et rassurer les militants, les sympathisants, mais également les Sénégalais qui nous prêtent attention FDS Les Gueulewaars renouvelle son ancrage au sein de l'opposition sénégalaise et déclare ainsi son retrait officiel de la coalition IDI 2019. Lorsque nous avions choisi de cheminer avec Idriss Seck à la présidentielle de 2019, c'était dans le but de construire une alternative au régime du président Macky dont la gouvernance scandaleuse avait provoqué une grave récession économique, mais également un profond malaise social et environnemental. FDS Sénégal-Loire a donné le meilleur de lui-même pour le triomphe de la coalition IDI 2019. Nous avons organisé une cérémonie d'investiture qui a remis en orbite le candidat Idrissa Seck comme le challenger le plus sérieux du président Macky Sall. Aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins et le peuple a besoin d'une vraie alternative démocratique. FDS appelle à la mise en place d'un large front avec les partis politiques, les mouvements sociaux, mais également les mouvements citoyens pour continuer la lutte contre la gouvernance scandaleuse de Macky Sall. Le directoire national de FDS donne mandat au secrétaire général de notre parti, Dr Babacar Diop, d'ouvrir des discussions avec les forces vives qui luttent pour une alternative afin de construire une nouvelle coalition pour préparer les élections locales. Enfin, le directoire politique national informe les Sénégalais que docteur Babacar Diop engagera à partir du mois de décembre 2020 une tournée nationale dans le cadre de la massification et l'implantation du parti à l'intérieur du pays. En l'instant, Serigne Hassan Khan, le porte-parole, est par ailleurs chargé de la communication des FDS, les Guéloirs, euh, qui revenaient sur la position qu'ils ont adoptée Euh, concernant la coalition IDI 2019. Et puis, euh, le cas de drame noté dans l'immigration clandestine. Euh, pousse par ailleurs le président du conseil départemental de Mbour a invité les jeunes d'arrêter de prendre la Méditerranée. Il interpelle les autorités à prendre les mesures idoines pour endiguer ces fléaux avant d'exhorter la population euh, mbouroise à dénoncer les convoyeurs qu'il qualifie de criminels. Nous écoutons à ce propos Saliou Samb, il est le président du conseil départemental de Mbour au micro de Moustapha où nos enfants sont en train de mourir dans la mer, où des fossoyeurs, des convoyeurs sont en train de tuer nos enfants dans la mer pour de l'argent. Et en tant qu'autorité, en tant que fils de Mbour, en tant que fils de TFS, nous ne pouvons nous, pas nous taire. Notre devoir, c'est de parler aujourd'hui à cette jeunesse, cette jeunesse du Sénégal, cette jeunesse mouroise, pour leur dire d'arrêter d'aller se suicider dans la mer. Actuellement, en Europe, c'est l'hiver qui commence. Et tout le monde sait que quand c'est l'hiver, la mer devient la mer devient impraticable. Plus de 5000 kilomètres pour aller en Europe, c'est un suicide. C'est rien d'autre qu'un suicide. Donc je demande à ces jeunesses-là de prendre conscience de cela. Je voudrais aussi en profiter pour que la population commence à dénoncer les convoyeurs. Parce que tout se sait ici. On, sait qui ils sont. On sait leur point de départ. Ils sont là. Il faut que les autorités aussi soient plus conscientes de cela. faut qu'on prenne des mesures contre ces convoyeurs-là. C'est des convoyeurs de la mort, que je, comme je les appelle. Des, ce sont des assassins. Et on ne peut plus le tolérer. Il faut aller les dénoncer. C'est un devoir, ça devient un devoir civique. C'est une obligation de dénoncer ces gens qui sont en train de s'adonner à, à, à, à un trafic d'êtres humains pour de l'argent. Et c'est très grave. Aujourd'hui, nous étions venus pour faire, pour présenter nos condoléances. Mais on, on va aller dans quelle maison Il y a plus de 100, 100 décès. Comment on peut entrer dans 100 maisons entre golf, TFS, résidence C'est pas possible. Ce n'est pas possible. À Yening, y a de jeunes. pareil. Mais ne peut pas continuer. Et aussi, ce gouvernement qui arrive, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils créent des emplois pour ces jeunesses-là. Le, travail ne doit plus être un rêve, ça doit une réalité. Le président Macky a sa vision. C'est à eux maintenant de, de, de matérialiser cette vision-là, d'en faire une réalité. Une réalité qui fait débat dans l'espace public euh, sénégalaise, raison pour de la les forces de défense et de sécurité était en conclave hier à saint autour de la question de la prise en charge judiciaire du trafic de migrants. Procureurs, juges, commissaires de police, gendarmes, entre autres, ont longuement échangé sur comment solutionner ce trafic de migrants qui a énormément fait des victimes. Et puis hier soir, la foudre a encore fait des victimes. Un hommage euh, d'une soixantaine d'années a été atteint sur un manguier au Sous-Mangué, autant pour moi, situé dans son domicile. Un drame survenu dans le village de Kersamba Nyufa, c'est dans la commune de Ndofane, dans l'arrondissement de Koumbal. La victime est décédée sur le coup. Son corps Euh, sans vie a été évacué à la morgue de l'hôpital de Kaolack. La gendarmerie a ouvert une enquête. Mamadou Camara. Drame au village de Kër Samba Ñuufa dans la commune de Ndofane dans l'arrondissement de Koumbol. Ce mercredi vers 18 heures, une décharge de foudre est tombée dans un domicile dans le village de Kër Samba Ñuufa. Une foudre qui est tombée sur Omar âgé d'une soixantaine d'années. Ce dernier est mort sur le coup. La victime était couchée sous un manguier dans la cour de sa maison. Son corps sans vie a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional et Hadji Ibrahima Niass de Kaolack par les soldats du feu de Nioro. La gendarmerie a ouvert une enquête qui suit son cours. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM.

FDS les Guelwaar daal dina dakkal àndam ak coalition Idy 2019 wante nag ñoo ngi wéy di des ci kuje gi ñoom nag ñoo ngi jàpp na dinañ taxawal benn kuréel gi nga xamante ne day woo képp ka nga xamante ne rek réew mi daal na la soxal nga daal di ñëw bokk ci kuréel googee ñooñu kii di Babacar Diop. ñoom nag jàpp nañ ne dinañ am ab tournée nationale ngir rek daal di gën a yaatale seen bànqaas ci biir réew mi ngir rek waajal élection locale yi lay ñu dëgmal Serigne Assane Kane moo àddu ci seen tour ñu teewlu ko. li ñuy fàttali mooy bi ñuy ànd ak président Idrissa Seck ci élection présidentielle 2019 sunu yéene moo doon fexe ba Sénégal am xar kanam bu bu bees jàppoon nañ ñi président Idrissa Seck ci jaar-jaaram ci xam-xamam ak li mu ñu wanoon ci jamono boobu. pare na pour indi coppite yi nga xam ni moom la sénégalais yi di xaar mu nekk sur le plan économique sur le plan social wala mu nekk sur le plan environnemental. beneen bi aussi mooy jàppoon nañ ni jamono boobu lépp lu ñu waroon a def ba opposition bi bañ a tas. dañ ci waroon a dox moo tax ñu ànd ak président Idrissa Seck ci élection présidentielle 2019 moo tax tey. ñuy wax militants yi responsable FDS yi waaye tamit sénégalais yi ni FDS les Guelwaar day wéy di des ci opposition bi FDS les Guelwaar génn na coalition Idy 2019 FDS les Guelwaar dakkal na ànd bi nga xam ni moom la àndaloon ak président sa Seck ak parti mi lépp lu ñu waroon a def nag pour sa Seck gagné ci élection yi 2019 def nañ ko FDS li muy woote mooy bépp parti politique wala mouvement citoyen wala sénégalais boo xam ni jàpp nga ni Macky nii muy yëre réew mi baaxul tegu ko ci yoon ñu ngi leen di woo ci ñu ànd construire benn front bu mag boo xam ni danañu may non seulement ñu xeex yorin wu bon wi nga xam ne Macky Sall noonu la yore Sénégal waaye bu weesoo xeex tamit ñu construire benn alternative boo xam ne boo xam ne moom la ñuy présenter Sénégalais yi. li may fàttali également mooy directoire politique national FDS jox na tamit mandat docteur Babacar Diop pour mu ubbi ay waxtaan ak yeneen parti politique ci joŋante yi ñuy jëm muy élection locale ci loolu sax moom. docteur Babacar Diop war na commencer benn tournée politique bu ko war a may ak directoire bi ñu dem fu ne ci Sénégal incha allah ak bitim réew pour présenter leen offre politique bi nga xam ni moom lañu ñu rëdd. addu ci beneen mbir bokk na ci jéey ji nga xamante ne ñoo ngi koy nemmeeku ci mbëkk mi foofee ca mbuur président conseil départemental ba daal dina sàkku gune yi ñu bàyyi la nga xamante ne moom mooy waax yi ñuy jël loole nga xamante ne nag da ko jàppe ne xaru laata moo daldi sàkku ci kilifa yi ñu jël matukaay yi nga xamante ne moom moo war ngir rek daal di fexe dakal loole sàkku ci itam askan wa fa ñu daal di fexe joxoñ baaraamu tuuma nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy yóbbu gune yooyee Saliou Samb moo nekk président conseil départemental bu Mbour ñu teewlu ko ci micro Moustapha Sall. ñëpp xam nañ ne fan yi yëpp àdduna bi Sénégal yëpp ñu ngi dégg ne am na ay xale yoo xam ne ñu ngi jël gaal yi di dugg ci géej gi di jéem a dem Europe naan dañuy daani seen doole ñëpp xam nañ ne ci gaal yooyu am na ñoo xam ne yàlla jot na leen jàppale ba ñu yegg mais am na ñoo xam ne tamit yàlla jot na def tamit ñoom ñu des fa te fekk tamit ne toujours dañu naan gaal yooyu yëpp fan lañ commencé fan lañ jógee mooy fii ci tefesu mbuur ay doomu mbuur xale yu bëri des si géej gi tey nag ñu ñëwoon en tant que d'abord doomu tefes en tant que doomu géej doomu napp en tant que aussi autorité mooy le conseil départemental de Mbour ak ci turu autorité yi nekk ci département de Mbour yëpp ñu ñëw andi suñu njaal mais ba mu ñëwee fii Mbour mënumaa dugg kër kenn parce que njaal mi rëy na rëy boo xam ne xale yi àddina kër yëpp am mort mais c' est très grave ce qui se passe mais njaal mi su su jeexee dafa am tamit loo xam ne dañ ko war a waxee tey dañoo war a jàkkaarloo xale yi wax ak ñoom moo tax tey looloo tax tey ma ne ma toog ak sama papa jaraaf ba dundooy ñu wax xale yi ne leen ngir yàlla wa rasool yi dañ leen di ñaan ñu toog fii bañ a gaal yi parce que fu ñuy dem noonu suicide la ñu leen di yóbbu xaalis rek a leen tax a jóg seen tekki intéressé wu leen te man dama xam situation bi géej gi dafa commencé sedd di commencé si sambaraax vague yi toll nañ toll boo xam ne même bateau yi sax il n'arrive pas à bien naviguer léegi nag ay gaalu bant mënuñoo yegg fu ñu war a jëm ce qui fait que automatiquement soit gaal gi day day suux soit ngeen ngeen ngeen réer les gens vont mourir de ku fi jël gaal dem xamal ne ngi suicidé wu donc soo leen ci xoolul keneen sax yéen seen bopp xool leen ci seen waajur ngeen toog damay laasaar appel aussi dama bëgg nit ñi les citoyens ñi xam ne dëkk ci te ci mbuur gi xam nañ fañ nañ kañ nañ ko nañu commencé dénoncer les convoyeurs parce que problème bi am loo xam ne ñi xamuñu ko mooy lan mooy convoyeurs yi dañoo jël xaalisu xale yi depuis un mois ils ont l'obligation dama ne xale yi te ne xale yi dañu leen jël dugal leen ci gaal yi leen ne ne nag def nañ la def ñooñu xam ne vision son excellence de la président Macky Sall lu mu am ak lu mu nar ci xale yi yàlla nañ ñu ko ñëw defal ñu ko rapidement pour xale am xëy loolee daal na ëlëm ku ne tax na itam ña nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllub yoon ak way takku der yi ñu daal di amab ndaje bu yaaw niki demb foofee ca ndar ngir daal di xool ana la ñu def ba daal di saytu ñooñee di jël mbëkk mi ci wàllub yoon lu demee niki procureur àttekat commissaire polis ak ay sandarme ñoom ñëpp daal di nañ ci sekk bu waxtaan ngir rek daal di xool ana la ñu def ba daal di andi saafara ci mbir moome. jëye daal di amati foofee ca Kaolack benn góor gu am lu toll ci juróom benn fukki at la dënnu bi daal di daanu ci kawam moom nag moo ngi doon seetlu ci benn màngo gu nekk ci këram foofee ca kër Samba ñuufa nekk ca commune bu Ndofane ci arrondissement bu Koumbal Mamadou kamara Njombe am na ci dëkk bu ñuy wax kër Samba Ndioufa ci commune Ndofane ci arrondissement Koumbal alarba bi boori 6 heures mu am benn décharge foudre boo xam ne bi moom moo daanu ci benn kër ci dëkk bu ñuy wax kër sàmba Ndioufa dënn boo xam ne bi nag. mi ngi dal ci góor goo xam ne kii mi ngi am juróom-benn fukki at di wuyoo ci turu Omar soow moom Omar Sow boobu ñàkk bakkanam ci saasa ki ñàkk bakkanam moom nag mi ngi tëddoon ci benn ron garabu mango ci biir këram doon féexlu néewam nag sapeur pompier yi nekk ci Nioro jot nañ ko jël yóbbu ko ci morgue hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack gendarmerie daal di ubbi ab l'enquête Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara xanaa rek fàttali leen ne taw yi ba léegi ñoo ngi wéy di wadd foofee ca Saalum lu demee ni ki Latmingué ak li ko wër ak it benn pàcc ci Nioro du foofe nga xamante ne sax soriwul lool ak lii la di Kër Samba Ndiouf nga xamante ne foofee la dënnu bi daal di. Euh, Wade mbokk yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm gërëm bu baax Papa Abdoulaye Dieye mi féete ci xarala gi ci kanam tuuti bu bu juróom-benn waxtu jote ba teg fanweeri simili rédaction bi dina fi ñëwaat yaatal ko ci français ak ci wolof laata loolu ñu bàyyi leen ak seen programme moo seen rajo ñu leen di ñaanal panaanub jàmm.